ma chère Alima nañ la. maa ngi lay fay soxna si. l'actrice renommée bu nga xam ne nag ñu ngi ko ràññee ci série boobu di famille sénégalaise tey ñu dajeeg yow fii ci Ndindi lu war a sa teewaay fii. Euh, sama teewaay mooy ñëw màggal si ñëw ziar aussi nga xamante ni dama ko bëgg bien vrai que du ma murit taalibe Cheikh la mais dafa sotti sama xol muy sëñ Abdou Karim. Mhm. dama ko bëgg loolu moo fi indi. Mhm. Mhm. nga daal di def sa jampot bu ne muut def sa njaxas daal di ñëw toog. <laughs> waa dama ko simple rek. def ko à la murit. waaw loolu laa def. Euh, tey lan ngay wax fans ci ca màggal gi nga xam ne la ñuy jublu nii. Euh, fans yi duma def lu dul di leen bëggee di leen ziar. di leen ñaanal ci màggal gi di leen ñaanal aussi ñu koy fekkee ay ati at ba ñu mën di ñëw parce que ñun tamit amuñu ñunu bëgg fans rek la am dafa neex nga ñëw fii gis ñu la bëgg di wax ak yow di la jël ay photo ak ay vidéo ça fait plaisir. Mhm. su ma la kan mooy Alima lan nga may wax. Alima est-ce que dinaa mën a wax si Alima lu bari. Mhm. Alima benn femme la. Mhm. une femme. mariée. nekk ci kër di sëy ak ay wujjam. bëgg jàmm bëgg salaam mais fiir aussi xaw a ragal tuuti aussi <laughs> tapet waa tuuti parce que dafa am wujj bu féroce wujj boo xamante ni li muy def alima xamul loolu alima jàmm la xam ak salaam muy nit koo xamante ni jàng na di liggéey yore ay diplome di voyage di ñëw bëgg ménage boo xamante ni dafa stable amu ko parce que wujj bi mu am dafa dangereuse kooku mooy Alima. di soxna ba toor yóbbu seen wax ko te dee. <laughs> waaw yóbbu na suñu fit c'est normal mu yóbbu sama fit parce que ku la bëgg rey. Mhm. bëgg ray sa doom. Mhm. boo ko gisee di nga daw. Mhm. waaw wala fa euh, tey lan moo ko inspiré ba mu dugg ci li nga xam ne moo di cinéma sénégalaise. non cinéma bi nag dama ci dugal profil la rek. dama xam ak waa waa Pikine laa xamanteel. ñu soxla profilu Ndeya parce que avant Ndeya di dugg ci animatrice euh, euh, actrice mannequin la woon top modèle d'accord léegi profil bi foofu lañ koy gisee mu intéressé leen ñu woo ma ma dem def casting réussir ko ñu jël ma mhm. nga daal di joué rôle aliment mhm, rôle euh, ñu gis ne euh, bi nga ko joué euh, sénégalais yu bëri ñii apprécié na ñii apprécié wuñu parce que nekk nga ci ko xam ne bàyyi nga sa loxo trop daal di tooy sa wujju di la mal mu ne nu mu ko neexee mhm. nan nga ko dundee ak sa entourage ak sa famille non mettiwul parce que rôle la boo jàppee ni que rôle la rek du metti des fois sa famille dinañ am lu leen metti parce que dóor yi lay soxna ba tóor di dóor mhm. wala ni ñu lay maltraité dóor yi posté mhm. ñoom dañuy jàpp ni que peut-être ndayaa la ñu xool du ñu xool alima mais bu ñu xooloon alima du leen metti mhm. parce que kooku alima la du ndayaa xam nga tey bu doon ndayaa soxna ba tóor du ko fekk fu mu toog di ko dóor film bi moo laaj loolu moo tax mu demee noonu kon dama bëgg rek ñuy ñuy ñuy tuuti bañ a jaawale personne ak personnage c'est pas la même chose ñuy xam ne lii personnage la ñuy si fekk si mais boo bëggee mer si personnage dafay metti ndax des fois sax sa famille dañ naa la da nga ñàkk fayda da nga tàppet alima foo génn tàppet bi dañ lay wax mais role bi moo ko laaj euh, role bu réussir mooy indi loolu est-ce que Ndeya ak Alima am na différence maanaam ni Alima tàppete est-ce que Ndeya noonu la mel non non <laughs> tàppetu ba dafa pànk la <laughs> doo <laughs> panku ma xam na la de <laughs> panku ma mais tamit ku ma tooñ dinaa sama bopp. Mhm. du ma daw. Mhm. comme alima ni muy dawee dayaa du dawee noonu. Mhm. day defante. waaw day fayu day dem ba jeex. <laughs> Ah, ci gis deuxième saison bi gis nañu changement tuuti rek ci aliment ah, te nañu ne eh, doomu jëkkër ji moo ko xaw a may fit tuuti ba muy jàmmarloog ak ah, ki nga xam ne moo ji wujjam bi ko sonal tey boo seetaanaatee sa bopp par rapport ak première saison looy yëg. Euh, mooy que avant am na avancement bu bëri bëri parce que Alima première saison ak Alima deuxième saison am na différence parce que Alima deuxième saison am na fant si biir am na biige si biir ñu def seen coalition pour xeex soxna ba la woon woon ni la woon woon ni na fii ku fi yëngal ñu yëngal <laughs> loolu la ñu wax mhm. trio bi daal lool la loolu la indi la woon woon ni na mhm. soxna bu defee la ñuy def mhm. duñ ko may dara waaw tey ñu gis ne ñëw nga bésu màggal ñëw fi nga xamante ne mooy kër Baye Karim boo ñu mënee ñëwaatal sa digganteeg moom. Euh, sama digganteeg moom nag peut-être mën naa ne dafa du du lu bari bari mais Baye Karim ma dama ko bëgg depuis ma gën a nekk xale. mën naa am sax loo xam ne mën naa ko wax mën naa ko bañ a wax mooy dama mën naa ni sax Baye Karim est-ce que géntu ma ko xaw ma nu ma dikkee man dama xëy rek. un jour gis ko télé fekk way bi ko titi way jour boobu la njëkk a génn ma gis photom ci télé bi ma ne sama yaay man kii démb gént naa ko Jean expliqué mu ni ma gént ma ne ko waa may dem di dem di dem ba xamanteeg nit ma naan ko man kii dama ko bëgg bàyyi karim dama ko bëgg affaire yooyu noonu ba daaw mu boole ma ak ay ak nit sóoru faal ma fexe ba ñëw fi ba gisanteek moom Fatou Mbaye mi ngi nii toog du ma bàyyi ma fen bu ma ko gis damay jooy bien vrai man du ma murit taalibe sëñ Babacar la mais dama ko gis dama jooy jooy jooy jooy mais xaw ma lan la bëgg bi ma ko bëgg daal dafa naturel mm-hmm. peut-être moom moo si wetam. d'accord ah, pour si lay seetaan ndeyaa neex leen ñu fonk bëgg ko lool te xamuñu nag situation bi nga xam ne moom la ndeyaa nekkee maanaam célibataire ou marié tey lan nga leen di wax. célibataire. avec un grand C wala petit C. petit C. lu <laughs> tax petit C. ah parce ah am na ko fi nekk ah kon kay grand C. ah baa ngi ah waaw grand C ah, waaw. mu ngi noonu. <laughs> tey lan ngay wax fan si yooyu nga xam ne nag dañoo bi bëggoon a aborder nga xam ne nag moom moo di Ndeya amuñu woon fit tey fi mu ne ni may nga leen fit ndax leeral nga leen ne célibataire avec un grand C. ah mais non du grand hmm. C. petit la parce que am na ku fi nekk. waaw am na ku fi nekk moo tax mu nekk petit C. Hmm. ah dama leen wax ñu ñu yem si soppe rek fans hmm. rek. waaw yokku ñaani waaw. <laughs> vie bi nga doon mënee. avant ngay nekk feeñ ci écran vie bi nga doon dund ak say xarit say famille est-ce que Ndeya lay continuer di dund ak famille am ak ay xaritam ak entourage ba tey. bien sûr dara changé wul. ñi ma doon àndal daaw ñoom lay àndal ren. sama famille ñi ma nekkaloon. ñoom laa nekkal ba léegi li may dégganteeg ñoom li may gisanteeg ñoom dara changé wul vraiment. lan mooy projet yi. projet yi mooy gën góor góorlu gën a percer ci milieu bi gën a liggéey nekk actrice boo xamante ni mën nañ ko dégg fu nekk mu bañ a yem fii nekk actrice boo xamante ni dafay international am ay projet aussi liggéey waaw dem fu sori rek bañ a yem fii. bëgg nañ affaire dem ba ci kanam mu gën nekk high level. ñoo gis say début donc bokkoon nag sa famille rawatina sa waajur bu jigéen eh, ñu jékki-jékki jamono ji passé yàggul dara mu daal di génn àdduna ah, tey ah, lan la def ci yow ban vidde la def ci yow. je ne pense pas que ni dinaa si mën a wax. parce que masawu baax. parce neexoon na tey nga egg fenn fii gis sa yaay. massa massa ñu ngi lay massa bu baax massa massa massa massa direct bi ñu ngi woote ci massa massa yow moom massa massa